di nuyu monsieur le ministre Abdou Karim Sall di nuyu ñi mu àndal ñëpp di nuyu presse bi di nuyu Garga 2 ak Mama Lamine di nuyu staff Kajoor production bi yëpp di jul nuyoo bi di ko teg ci loxo suñu papa Bourkhane mu jaaree la ko ci ñoom Mbaye Diallo Cheikh Ndoye Baye Sall ngir ñoom ñëpp ñun nag li ñu def nii dañoo dëkk ci gox bi bu ñu dëkkee ci gox bi ay doomu Pikine lañ tey mënoo ne Pikine te tuddoo Mbao lépp ci département bi la kon nit ñi li ñu gis mooy li monsieur le ministre di def biir mbaaw nee naa leen Abdou Karim Sall nekkul Abdou Karim Sall bu mbaaw nekkul Abdou Karim Sall bu Pikine Abdou Karim Sall national la ndax jeunesse sénégalais moo ko fi moo ko fi baax ak li nga xamante ne moo ñor Sénégal moo ko fi baax appel bi may def mooy dama nekk doomu département bi am position bi ma taxaw ci département bi te ñi ma seqal département bi it xam nañ ko amul benn leader bi ma mus taxaw ne dama nekk sa ginnaaw maa ngi lay jàppale musul am waaye jël naa sama décision lépp lu mu nekk maa ngi ci. ak lu mu nekk maa ngi ci lu mu nekkul nekkuma ci. Ah. décision bu mu jël. te la preuve en est élection yiñ ñu jëm incha allah dinaa jël sama oto yi ma am defar samay tiset ànd ak moom liggéeyal ko mu am fi lu kawe njortam ci département bi te su ma ne su ma jugee département bi jóg su ma jugee Pikine jóg waaw loolu li ngeen def ni rafet na li li ñu leen mën a wax daal mooy ñu mel nii la réew mi soxla ñu mel nii la jeunesse bi soxla koo xamante ne bu jeunesse bi soxlaa da ngay am disponibilité pour jeunesse bi ñun ñooñu la ñu soxla parce que ñun ci li ñu nekk ñun xaaruñu état ci dara dañu nekk ci li ñu nekk ba yàlla defal ñu ci taw tawféex mais tey bu ñu gisee kuy jàppale jeunesse bi am nañu sañ-sañu delloo la njukkal wane na yaa ngi ci yoon bi loolu lañ ko defal te xam ne mi ngi ci yoon bi te xam ne monsieur le ministre ñun ñoo sa ginnaaw muy taw ñoo sa ginnaaw muy naaj ñoo sa ginnaaw te foo gëstoo di ma gis te foo ma gisee di nga gis champion yi di nga gis yeneen champion yi bokkul ak ñii foo ma gisee di nga gis Eumeu Sène di nga gis Ama Baldé di nga gis Boy Niang képp ko di nga gis waa làmb bopp di nga gis promoteur di nga gis manager yi parce que làmb koo ci laal laal nga ñëpp ñëpp benn bopp la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay muy presse muy ñëpp parce que ku jàppale làmb ñu jàppale la ku jàppalul làmb duñ la jàppale mais man maa ngi ci sa ginnaaw te ni ma nekkee sa ginnaaw ñoom noonu lañ nekkee sa ginnaaw te le 22 incha allahu di nga xam ne làmb ñëpp a ci sa ginnaaw te lii nekk suñu kanam yëpp maa ngi ci sa ginnaaw di màgg yow ba roi de arènes incha allahu rabbi loolu maa la fa incha allah yéen kaa leen woote da ngeen di woote woote bon maa ngi woo waa Diamaguène waa Sicap Mbao yëpp waa Télibam Diarra waa Guy ga waa Thiaw sa xiir yi te te Fass Mbao ñëpp maa leen woo waa Guy ga waa Thiaré Azir Thiaré Géej yëmbal Fora jaaykatu yàpp yi jaaykatu ngooñ yëpp maa leen di woo si bis bi comprendre di woo di sant tamit grand laay borom saal def sport maa ngi koy sant bu baax a baax ak sunu coach su bolo di nuyu waa Lamsaar bu baax a baax di nuyu père Max Mbargane ak père Moussa comprendre du nuyu ñoom ne ko réel ñoom fëgal a senteel ñoom ñëpp maa leen bëggee du nuyu gars yi ma àndal ñoom ñëpp di leen sant bu baax di wax nag gars yi nañ gën a génn ñu jàppale monsieur le maire parce que il mérite. làmb làmb ku ko bëgg. ñu bëgg la ku ko bëggul bëgguñu la. ñu làmb lay déglu ma fii ma wax la. ñun ah. làmb lañ am. te kii nii. waaw parce que Serigne Fallou Mbacké li mu wax ba ma ne man sax ànd naa yow. loolu moo tax ma ak moom ku bëgg làmb rek ñu bëgg parce que suñu ñu ngi koy ñaanal jàmm ñu ngi koy ñaanal yàlla hmm. maire dafa tuuti hmm. un jour viendra dina doon président de la république hmm. na gëm boppam rek fu mu teg tànkam mu teg ministre na doon président de la république lañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def wee di woowaat gars yi bu baax a baax di woo sama grand laay pata maa ngi koy woo bu baax a baax a baax nees mu ngi caari agir mais après léegi ñaanal tamit Siteu aussi tamit ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam ci combat moog Papa Sow di nuyu jàmbaar yi ma àndal jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo taxee comprendre ak Serif ñoom Abdou Seck gars yëpp maa leen di bégee bu baax a baax ñoom Matar Cuuj Karbala su dee ñëpp maa leen di nuyu. jërëjëf jërëjëf. acca garka de wootal. waaw xanaa di woo di remercier monsieur le ministre di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm taw fexe di nuyu waa Parcelles Assainies yi ni fa laa parcelle 1 ba 26 di leen wax ni combat bi seen doom moo xew la na ñëpp génn waa Cité Fadia gi ne fa Golf Sud di wax ni nañ mobilisé waa sas inde 4 inde 3 Cambérène 1 Cambérène 2 ogo ogo yi bàyyi ma kenn di woo tamit Mbawar Mbawar di wax ni làmb ji dimanche la na ñëpp pàcc yëpp nañ tëj seen place yi ñëw ci stade bi. ñu bëreeg Mama Lamine daan ko jël bu set wecc bu amul benn werante di nuyu waan Ndam xam nga lu ma di nuyu sama benn papa boo xam ne dafa may jàppale sama papa Yaram Gueye di ñaan ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm per Yaram doo ko wax ni kontaan nañ ci jàppale bi. di woo monsieur le ministre di wax ni combat bi jàppale mbëri bu baax a baax parce que ñu sa ginnaaw. di ñaanal nag ki nga xam ne mooy promoteur bi yàlla na ko suñu borom dafa réussite total te leen sant ñoom laa àndal di sant sëñ Mor di wax ne na jàpp ah sëñ Saliou Ndiaye di wax ñëpp nañ jàpp képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal rek gis naa di sant tamit sama dëkkandoo yi parce que gis naa ne ñu sonn ci combat di sant ñëpp leen wax jaajëf merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax. maa ngi sant Baye Baye Djili yam li maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Baye Djili waaw maa ngi koy sant moom jàmbaar na quoi. te yàlla ndeysaan daf ñu ko nattu. moo tax maa ngi koy siyaar di ko bëggee di nuyu Kanté borom Italie bu baax di nuyu Baye Ndaw Baye Ndaw Sall Sall Ngaane lam tooro Maodo sëñ Maodo maa ngi koy nuyu bu baax jaajëf merci beaucoup. yore xibaar yi di ko tas la presse ngéwél gi. waaw yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm maa ngi ñëw nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo waral bés bi xam nañ ne ñaari xale yu am jom lañu muy maama Lamine ak Garga 2 dara jombu ci làmb ji dara jombu ci làmb ji li ma fi gis léegi dal na sama xel fair play bi ma fi gis léegi mu amoon tuuti yëngu-yëngu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbilli yi ñu jóg kalme nit ñi joxante loxo ba ñëpp xam ne làmb moo leen boole ils sont des adversaires du moment bu ñu sëggee ku nekk am nga yaakaar am ndam yàlla mooy maye ndam ci message bi ngeen joxe léegi léegi wone na ni gëm ngeen ni ndam bi mënul génn Sénégal ndam bi ci Sénégal lay des comme comprendre ngeen loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax vraiment j'ai pas regretté li ma fi tegul sama tànk li ma fi teg sama tànk parce que ma ñëw fekk ci benn promoteur di jeune responsable am yar xam bu baax fi muy teg tànkam Ibrahima jërëjëf mais ma fekk fi aussi ñaari xale yu war a jongante yu am jom yu am fit waaye yu am xel yu am patience ñu am fair play parce que bu leen nax seen bopp ñi nekk seen ginnaaw ci yéen la ñuy seet boo leen tàngalee ñu tàngal boo leen seddalee ñu seral donc vous avez une grande responsabilité te responsabilité boobu ngeen am gis nañ ne wane ngeen ko ci jotaay bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ba ci bës bi incha allah mm-hmm. bés bi di bësu région bi nga xam ne mooy région de Dakar parce que diggante parcelle Assainies la diggante département de Dakar la ak département de Pikine diggante département de Dakar ak département de Pikine diggante commune Diamaguène ti euh, euh, Sicap mhm. ak commune Parcelles Assainies mhm. yàlla na yàlla def ñu teewee ci jàmm te tal kenn bañ mhm. ku nekk ànd say capacité yu mot sëkk ñu tàllal loxo yàlla képp koo xam ne war nga am ndam mu may la ndam ci lu sedd loolu lañu ñu bëggoon délivrer comme message sport bi nga ni def muy làmb sunu sport national la sunu national la bi nga xam ne dañ ci war a def sunu kéemt lay kattan parce que sport bi li ci wékku li ci nekk li nekk ci biir sport bi ci wàllu ndaw ci wàllu promoteur ñi siy daan seen doole bëri nañu donc boo buggee jàppale jeunesse sénégalaise comme ni ma ko waxee sànq ku nekk da koy fekk fi fi mu nekk nga jàppale ko foofu fi ngeen jàpp foofu la fi ngeen tey foofu la lépp lu waay di def na ko def ak fulla def ko ak jom def ko ak ngor boo ci amee mu nekk lu la lew boo ko joxee sa njaboot mu lew leen doom vraiment Ibrahima ci yow laay mujjee ci yow laay mujjee awma sa awma sapay waaye loolu betuma ñaari nit ñu bokk pas-pas bokk bëgg-bëgg bokk li nga xam ne mooy li ñu yéene bu liy xewee sunu diggante mënul nekk hasard donc maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di la wax ne ñu ngi sa kanam ñu ngi si ginnaaw ñu ngi say wet incha allah ak képp koo xam ne yaa ngi taxawal sport mu jëm kanam rawatina sunu làmb maa ngi sant ñëpp di nuyu champion yi rawatina les champions du département de Pikine ñi nga xam ne lim naa leen sànq. Boy Niang dafa def déplacement ñëw ba fekk ma fii Ama Baldé. dafa jël téléphone woo ma ma wax ak moom téléphone loolu ça me rassure Eumeu Sène bàyyi yépp dagg ko ñëw fekk ma fii donc loolu ku mu doyul dara du la doy bés boobu incha allah bësu Sénégal sunu bës la bu soobee yàlla ñu ngi ñaan ñu teewee ci jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Ibrahima Ibrahima Ibrahima xaaral xaaral